Tape www.suividécole au Sénégal.com À école am nga fa may kon ba nga amee may ay bi nga amee ay am nga fa ma muy may waaye am nga fa ay ay boo amee ay da nga ca yokk maa muy aymaanun aymaanun baaliga alquran la aymaanun baaliga kon am nga ci ay moomu lu dul jeex mooy yaa mu desala aa mi nga xam ni yadul yatiima yadul yatiima jàng nga ya leer na daa bi jàngoon nga ko sànq leer na da di du da da dan du du dun di di din ba bés bu nekk ñu jàngaat ko ndax daf toujours dafay baamtuwaat dafay ñëwaat ci biir lettre da bi leer a bi jàngoon nañu a a an waaye tay danga koy def ni a a i o a i a i o a i u a i u a i u a i u lu des an in on an nooy def danga yokk rek ci kaw an in nga bàyyi ko noonu yokko ko un nga yokk suuf bàyyi ko ci in an nga yokk alif am nga an am nga in am nga un ci u bi ngay del si yokk ci ñaari maska muy un i bi nga ñëw ci suuf yokk ci ñaari maska muy in an ba nga yokkee alif da nga yokkaat ñaari maska muy an an in un lu des a a a il faut nga am loo ci boole muy alif alif nga def alif bi nga ciy boole il faut nga am alif yokk ko ci muy a a ah boo ko boolee bi nga amee ah loo ci loo ci loo ci eh, foo ko yokk ci dara pour man mën a wax dara amal amal mooy ay jëf la ay ay ay ay jëf la ay jëf la amal saalihaat jëf yu yiw yi allazina amanu wa amilu saalihaat allazina amanu wa amilu saalihaat kon jàng fi a wa amilu wa amilu salihat walangani wa amalu wa amalu ala daud sukra alquran nga wa amalu salihan yooyu yëpp alquran la al yatima jàng nañu al bi al il ul al jàng nañu ko li lu laa lii lu lam lin lun al mi ngi ni yadoul yadoul yatiima jangan nañu ya lagi ba mu leer kon moom lañ fi jàng te jàngoon nañu ko waaye ñu leer lu wat ko ndax lettre dañu bëgg muy leer yatiima ya bi leer na jàng nañ ko léegi nañ fàttaliku ta mi nga xam ni na ci nu jëkk jàng muy ta ti tu da di tadi du tadi du tadi du tadi du tadi du tadi du tam tin tun at tadi du ta, tak di duduk tadi tadi du tadi tu tadi du lu udah tam tam tintung tam wàññil fii tan bi na ngay ñëw yokk fi ñaari maska muy tan nga am tin tun tam tin tun aha lula la at at ñëw na li bindal naa la ko waaye loo ciy dolli baa mën am at ndax masque ron la kon loo ciy dolli rat def ci rat rat kon أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما القرآن لا أم at am nga at waaye indil alif dadi am at at loo ci yokk raa at raban at raaban ak maas la benn la at raban, ay moroom lañu at raban am nga at waaye il faut nga am alif ca gannaaw boo ca amee boo amul alif wutal ma teki muy mat mat mat matru matrukun lu ñu bàyyi la lu ñu fa bàyyi la lu ñu fa wàcc la lu kenn laalul la matrukun wala lu ñu pare la ba ko mat at daal kon mooy masque lonk gi moom il faut nga am rek lu ko te ginnaaw loo xam ni dina tax nga mën koo nga mën koo liir waaye bu dul loolu doo ko liir bu dul loolu doo ko mën a liir waaw muy yettiima tii leer na ti tiitin ta ti tu ta ti tu tam tin tum jeex na lu fi des mim bi yatiima raayta alladi yukadibu bi diini wa dalika alladi yadul yatiima ñëw nga ci mim bi ma ma mi ma mu ma mi mu ma mi mi mu mu man man min man min mun man min mun man min mun am am Amram, am am nga alif boole ci waaye nag boo ne am yok yokk ci dara amran kaana maf'ula am am am amran amran amran amran amran am am mi ngi ni na ma mi mu ma mi mu man min mun am am am kese mi ngi nii leer na am am am am nga ko léegi nag bu fekkoon ne am ran nga bëgg waaye am nga fi wa kese nga boole ko ci mooy wamra atu jàng nañu ko ci bee paase wamra atu hu wamra atu hu xamalatal xatab fii jiidiha xablun min masad jàngoon nga ko ci suuratu suuratu masadi suuratu masadi kon ci ñu jëm a mokkal saar wi fexe koo man waaye fexe ko mën a liir ba nga xam ni suñ ko deetee jàng duñ ko jàng jànginu ku ñu traduiral rek ki la traduiral moo xam mën na liir moo xam mënu liir moo xam bind na ko ci langue bi mu dégg mën naa ñëw exact wala mu ñàkk mën a ñëw exact waaye yow li nga gis ngay liir ndax xamoo la ca des léegi nag dangaa war a xam li ci des danga war a xam alquran ni mu ko bindee waaye nga xam alquran ni mu koy liire ni mu ko liirloo mooy alquran daf la ni liirloo la araayta araayta déedéet araayt déedéet araayta الذي يكذب بالدين الذي يكسب loolu ngay dégg ñenn ñu bari di ko wax moom lañ la fi keroog billadi déedéet du billadi de biddiini ngay wax biddiini doo waxit biddiini biddiini dafa am sadda raayta alladi yukadibu biddiini fa dalika alladi doo bind faddaa vazalika ni nga koy prononcé da ngay xam ni doo wax fasalika déedéet du siin de da la deel ju tooy la fa dalika allazi fa zaaka allazi kenn du ko wax fa dalika allazi fa zaaka mooy kële ba foofa ba foole fa zalika kooku lay wax kii muy wax du kooka de fa zalika kooku alquran di wax nit la fa dalika allazi lazi mooy ki nga xam ni tur la woo xam ni ismu mawsul li aqilin la nit lay waxal ku amoon xel lay waxal allazi mooy ki nga xam ni kon bu la waxee ay fazalika nga ni tekk di dégloo mu leeral la ki muy wax ni la nit laay waxal fazalika allazi nit koo xam ne nit ki nga xam ne yadool yatiima dafay puus jirim ak di ko dàq ak di ko bumax ak di ko buux ki nga xam ne xajoowul jirim wa zalika allazi yadool yatiima ki nga xam ne moom fu mu toll ba max jirim lay def xajoowu ko waaye daf koy xatal jirim daf koy gêné ndax bëggul ku ko laaj te jàpp na ne jirim moom ñëwul ngir joxe si dara waaye bu ko gisee jàpp na ne dafa soxla dara wala dañ koo war a jox wala buy séddale war na cee jox jirim te xëy na jirim boobu du mooy toog moom di ko way wala muy wax ñépp ni ki jox na ma xëy na moom bu demoon bay joxe sax day joxe du joxe ngir yàlla yàlla taxul muy joxe kon du jox jirim bi nga xam ne amul mënul xamul du ko jox waaye bu doon joxe ba mu ñëw du bokk ci ñi muy jox ginnaaw na bokk ci ñi muy jox te bëggul mu nekk fii di ko seenee xam ni joxu ko wala mu di ko laaj te naru koo jox mu ngi ñi koy way mu moo tax nag kooku dafay dàq jirim fa dalika lesi kooku nga xam ne yedoo ol yetiima moom xajoowul jirim daf koy pus mu dem daf koy dàq dinañ ñëw ci xisa bi buñ toogee pour nett di ko ci li ñu alquran doon wax ñu ne abu jahlin la am na ñu ne déedéet kooku aas ibnu wail la waaye ak képp ku defati lu mel na la ñu defoon rek yow la waxal ku defati lu mel na la abu jahlin defoon jirim ba asim la aas ibnu wail defoon jirim ba ku ka faqir ba wala miskin ba aji laaj ja ku néew doole ka ki am soxla ki nga yor looy di ko joxe mu ñëw teew nga bañ koo sédd doy na musiba jox ko loo xam ne mënoon nga ko jox lu ko ëpp doy na musiba waaye nag doyu leen ñoom yemuñu ca loola waaye koo dàq sax nag ni ko fii amoo fi place fii ñu ñuy sédd mooy ñi nga xam ne bu ëllëgee ñu sédd ñu ñu ñuy sédd mooy ñi nga xam ne ñoom lañ tollool garaat ñu ñuy sédd mooy ñi nga xam ne bu ñu leen séddee dootu fay mukk fu ñu toll di ko wax ñi ñuy sédd mooy ñi nga xam ne ñooñu séddoon démb ñuy fayante ay bor di njukkalante ñooñu la ñu sédd waaye du ñu sédd koo xam ne dañ naan dañu koy jox ngir yàlla déedéet moo tax ñooñu la yàlla di xas nag ni ñooñu nga xam ne dañoo dàq dañuy dàq jirim xajoowuñu ko ñooñu nga xam ne diine ji dañuy fen rek waaye nekkul ci seen bopp nekkul ci ñoom ab baat boobu la alquran utilisé yàlla nee na dañuy fen ci diine ji dañuy fen ni gëm nañu yàlla gëm nañu diine ji moom la ñu jëfandikoo yàlla ni waxuñu dëgg du nun noo wax de baat bi la yàlla wax allazi ki nga xam ne yu kazibu bi diini fa dalika lesi kooku yegg na ba ci moom ci boppam yu doxal yët yi ma xajoowu jëm da koy dàq da koy puus moo tax mu ne xanaa gisoo leen muy wax ak yonent bi alayhi salatu wassalam di wax ak képp ku jàng alquran ku teg bët ci ñu mel nii mu ne lii seen mbir ëllëg ak ñooñu lan nan la ñuy ci jamono ba nga mën leen a mu di la jox yi ni la foo ci gis koo xam ne sax du ko bokk nit ku ko ni abal ma bumgi jii buum gii ma yeew ci te mu xam ni yeewu ci dara léegi te mu wóor ko ni itam ci ba ko ko ko dara du ci wala abal ma peel bii ma gas ci delloosi la wala abal ma kuddu gii ma tibb ci delloosi la wala abal ma bool bii ma def ci delloosi la mu wóor ko ne dara du ci sikk waaye da nga koy àbb delloosiwaat ko mu ne xajoowul loolu moom wuutil yow itam moo tax yàlla ni ñooñu alladi yedool yetiima wala yaxuddu ala taamil miskin waxuma sarax du sarax jirim du leel miskin du leel faqir du faj soxlas ku ko dul siiwalal mayam googu mu maye du def ci yooyu dara waaye nag dafay xañe aw ñam yudoo yatima wala yaxuddu ala taami miskin mu ne waaye nag kooku de booye boo ngeen xibaar ko ni ko borom baa ngi koy tëkku ci mbugal mu rëy ndax ñàkk def lu baax sax waaye mu ni ko kooku bu bu nee la la waxul dëgg ndax bu jógoon di julli sax dafay tayal kooku dafay bañ sax julli gi mbaa mu ne la man duma ko def wala mun la jaru ko wala mun la yàlla santaane ko pour dara yadoxul yatiima wala yaxuddu ala taamil miskiin waaye ba borom bi ne fa waylun lil musallin alladina hum an salatihim saaxuun mu ne ñooñu doyadal gi ñu ñàkkal fayda julli bu ñu ko faatoon sax defuñu ko muy dara an salatihim saaxuun dañoo sàggane sax seeni julli alladina hum yurauna mu ne bu ñu demoon ba di ko def dañuy nekk ba nit ñi ne fi ñu julli bu ñu gisul nit ñi duñu julli bu dee ñoom rek ak yàlla duñu julli alladina hum yurauna waaye noonu la ñuy noonu la ñuy ngistale itam ci lépp lu ñuy joxe it ñu ne joxe ne diwa ngay joxe diwa ngay joxe bu ko nit ñi gisul bàyyi nañu